dëkkub Serigne Touba la. dëkkub Serigne Touba la. lu ngeen fii def sëriñ bi defal. lu ngeen fii def sëriñ bi rek ngeen koy defal. waaye sëriñ bi leen koy defal itam. waaye sëriñ bi li ngeen koy defal it. taalib yi koy jëriñoo. taalib yi ñoo koy jëriñoo. ndax lu mu ci doon rek sëriñ bi koy jëriñ sëriñ bi ci gën a néew la. ndax lu mu ci ci gën a néew la. wax bu ñuy wax dëkk bi. ndax bu ñuy wax dëkk bi. taalib yi tax ñuy wax. ñoo tax. kon liñ leen defal. kon liñ leen di defal. muy àgg ci ñoom. muy àgg ci ñoom. waaye itam. waaye itam. am na ci loo xam ne. am na ci loo xam ne. mën naa gën a bàyyi xel. mën naa gën a bàyyi xel. ndax kuy booy jëflanteeg nit. ndax booy jëflanteeg nit. ak wegeel da caa baax. ak wegeel da caa baax. ndax mënoo ñëw cib dëkk. ndax mënoo ñëw cib dëkk. def fa projet bu toll noonu. def fa projet bu toll noonu. te ñee dëkk ci dëkk ba xamuñu sax projet bi nu mu demee. ba ca nga xam ne ña dëkk ci dëkk bi sax xamuñu projet ba nu mu demee. man mii di wax ak yéen. man mii di wax ak yéen. tanewuma leen ci. tanewuma leen ci. maa ko lijjanti woon. ca maa ko lijjanti woon. Abdoulahat Ka mii xamu ci dara. Abdoulahat Ka mii xamu ci dara. sëriñ bi nga xam ne maa ko war a leeral. sëriñ bi nga xam ne maa ko war a leeral. yéen a ko yéen a ko ci tane. yéen a ko ci tane. asama population bi ci dëkk bi. asama population bi ci dëkk bi. kon loolu dimbalewut président bi ngeen di jëfal. ndax loolu kon dimbalewut président bi ngeen di jëfal. ndax nit boo koy dimbale. ndax nit boo koy dimbale. la nga koy jëfal dafa war a leer ci ña nga koy jëfal ne ci kanam. ndax ñun ñi nekk ci kanam. leerut ci ñun bay leer ci taalib yi ne ci dëkk bi. ci ñun bay leer ci taalib yi ne ci dëkk bi. te dëkk bi itam. te dëkk bi itam. dafa am nu mu dafa am nu bindoo. fépp fépp féppay farata. féppay farata. waaye priorité bi. waaye priorité bi mooy tàmbale ci jumaa ji di wër. mooy tàmbale ci jumaa ji di wër. quartier yëpp tolloo. kàlli ñëpp yam ci. ñëpp waaye fi mu toll nii. waaye fi mu toll nii. boo jokkatee fii. jokkat ñi ngay defal xamuñ mu. ñi ngay defal xamuñ li ñu defal. sax ak andi ak defar. te fekk li nga defar ak yàq lay mujj. te fekk li nga doon defar ak yàq lay mujj. woo moom mi ay yoon. nee na man mi woo naa lay yoon. boo gisee ma leeral ko. boo gisee ma leeral laaj naa ko ci lu ëpp ñetti ñetti yoon. waaye bu ma ko laajee du ma tontu dara. waaye bu ma ko laajee xam ko. loolu dama koy wax ñëpp xam ko. ba ci ëpput fukki fan. ba ci ëpput fukki fan. mu ne ma dinaa la woowaat waaye tontuwaatuma. mu ma dinaa la woowaat waaye tontuwaatuma. kon maa ngi yéene ci yem. kon maa ngi yéene ci yem. daa ñu koy def. yooyu nag daa bëri yu ñu koy def. te loolu uh, dugg wegeel. te loolu dugg wegeel. du dimbale seen kilifa yi. du seen kilifa yi ngeen di liggéeyal. ndax kilifa boo koy jëfal. ndax kilifa boo koy jëfal bu ngeen agsi wut ci man itam. bu ngeen ci man jaar ci Abdou Lahad Ka. jaar ci Abdou Lahad Ka. wala ngeen jaar ci député yi. wala ngeen jaar ci député yi wala ña war a xam-xam. wala ña ca war a xam. Ah, loolu daal mën naa bàyyi xel bu ëllëgee. loolu daal naa mën naa bàyyi xel bu ëllëgee. ci liggéey ci liggéey. njàmbat li bëri na ci. njàmbat li bëri na ci. projet yu mel noonu yu bëri ci projet yu mel noonu yu bëri duñ toog ci rajo bi di wax. ñun nag duñ toog ci rajo bi di wax. ndax euh, kilifa ndax kilifa. bu fekkee boo waxee moom mu dégg la. boo waxee moom mu dégg la. doo toog ci rajo di ko weer. doo toog ci rajo di ko weer. ndax loolu. ndax loolu. am na ñu ko moomut. am nañu ko moomut. boo gisee ma àggee ko nii itam. boo gisee it ma nii. mooy moom mii. mooy moom mii jàmm képp laa seq ak moom. jàmm rek laa seq ak moom. sama xarita. sama xarita. waaye du ànd ak nit ci lu dëgg. waaye du ma ànd ak nit ci dëgg. lu baax rek laa xam ci moom. lu baax rek nag laa xam ci moom waaye nag. liggéey Serigne Touba bi moom. liggéey Serigne Touba bi nag. fi ma nekk. day yëfi jàmbur. day yëfi jàmbur. kon lu ci doon rek. kon lu mu ci doon rek. daa war di leer. daa war di leer. ñu xam nam demee. ñu xam nam demee. ba ñu ko war a leer leeral ko. ba ko war a leeral leeral ko. waaye entreprise boo koy defal. waaye entreprise boo koy defal. suñu yoon néew ci. suñu yoon néew ci ndax mosuñ ko lijjanti ci benn projet. ndax mosuñ ko lijjanti ci benn projet. ba xam kum doon. ba xam kum doon. waaye liggéey moom. waaye la liggéey moom. ndegam ci dëkk bi la jëm. ndegam ci dëkk bi la jëm. ci sëriñ ñu ko fi def. te sëriñ bee tax. bu ñu leerul ñun